D'ailleurs, les ces là, ce, ce, que je leur ai reproché, les militants du parti, hein, quand mi mis Yankoba Diatara, des, des, gens se sont battus, etc. ah, Diatara mi mu ñu bëgg a imposer lu tax mu koy teg suñu kanam et puis bu réussir mooy nekk patron parti bi fii du ko nangu etc. xeex ba yalwaan ma daanu. ñoo ko yàqal seen bopp simplement puisque seen vision ñoom mu ngi yem ci na jatara échec mais bi jatara échecgee ñu déglu rajo bi doon déglu ne jatara ñàkk na jatara nangam nangam mais dégguñu loolu li ñu dégg mooy Idrissa a été hué dans son bureau de vote il a perdu il a ceci ñu ñëw daw si seet si ma ne ma ñun ñii ñoo organiser loolu pour démontrer k jatara mënalu la dara ñun ñoo am pouvoir ma ne leen mais yéen li ngeen doon bëgg a démontrer rey ngeen ma faf parce que mooy mooy mooy ndaw sa rek ndaw sa ak wujjam ndaw si dafa nekk ñaareel nekk xale aw bi ñëw ne ko sama nijaay moom li mu gën a bëgg mooy buy lekk cere nga koy dóor tàpparka naan ko wannal waaye wannal comme xale la xamu ci dara mu yore tàpparka bi ñëw tegal góor gi cere ji góor gi di lekk mu téye tàpparka bi di dóor rek naan ko wannal waaye wannal góor gi xaw naa de ma ne leen vous m'avez fait la même vous luttez contre Diafara et vous tapez sur moi et c'est vous qui perdez puisque man bi ma leen di jox Thiès on avait les trois communes on avait la ville on avait le département ngeen caaxaane ko ba mu daanu ngeen di ñëw yéen ñëpp vous n'êtes plus rien je reprends moi-même la coordination et je vais voir si les Thiessois vont m'accompagner ou pas C'est très simple. Hein. Si je suis candidat, on va voir les résultats. C'est tout. Si les Thiessois me disent euh, on n'est plus avec toi, j'arrête la politique. Je l'avais dit. Mais ils ne me l'ont pas encore dit. ah waaw bu ngeen ma ko waxee daal moom ma ne abal leen